di doomu réew mi lañu te xam nga nee nañu euh, euh, réew ñett moo ko yore mooy d'abord xam-xam bi te yaakaar naa di bu dee as néew yàlla nañu ko euh, xamel bi te yaakaar naa ni tey fi ñu jaar suñu jaar-jaar wane na ni xam nañu ay nit ñi nga xam ni parce que boo yoree réew ñi nga xam ni foog nga basé aussi ñoom pour mën teg yoon bi ci kaw ci kaw yoon ñetteel bi rek mooy njub bi te yaakaar naa ni ni ñu ko waxee doomu daara la te doomu daara moom bi addi day day baax moom eh, doomu daara moom lu mu dëng dëng dëng moom dina des ak jub ci moom donc ñett yooyu bu fekkee maa ngi yore yooyu ci kaw ak Sénégal yooyu ak réew mi fu mu toll tey yaakaar naa ni tey moom wax dëgg yàlla am naa sañ-sañ yëkkati sama loo xam ne dénk leen wa réew mi ma teg ko ci yoon. priorité waaw priorité boobu ni ma ko waxee rek ñeenti priorité la ñu am benn bi d'abord. mooy eh, modèle de développement économique bi ñu yoree Sénégal bi nga xam ni mooy indi koom-koom bi mu jóge ci kaw law dem ci suuf ñun boobu dañu ko bëgg a dàq indi ko eh, modèle de développement économique bi nga xam ni ci ci àll bi lay jóge ci nga xam ni mu eh, système économique bi si àll bi lay dëgëral d'abord balaa yéeg ci kaw loolu mooy suñu model de développement économique bi nga xam ni moom la ñu war teg en place ñaareel bi mooy banqaasi réew mi nee nañu banqaas yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi rek tey war nañu fexe banqaas yooyu tamit ñu xoolaat leen ñu saytuwaat parce que banqaas yooyu euh, nasaraan bi moo ko fi wëccoon te daanaka comme que ñooñu loolu li li méngoo ak seen histoire ak li méngoo ak seen i seen seen i seen i euh, héritage culturel loolu lañ ñu jox te ñun tey war nañu teg ay banqaas yi nga xam ne moo gën a méngoo ak suñuy cosaan ak suñuy aada ak suñuy gis-gis ñetteel bi mooy suñuy aada ak suñuy cosaan il faut que ñu fexe ba nga xam ni quel que soit suñu développement économique aada ak cosaan yooyu bañ a réer bi nga xam ni tey suñu doom yi même lu ñu mën a tim euh, tedd tedd tedd yi dinañu xam fi ñu jógee dinañu xam lan mooy seen i cosaan ak seen i aada ñeenteel bi nag mooy aar réew mi. parce que war nañu aar réew mi te ku ne aar réew mi nag di wax aar ñi nga xam ni ñooy doomu réew mi parce que tey am na ci yenn dëkk yi nga xam ne boo fa tegee tànk tey ñooñu même bu fa keegi benn gàtt la ñuy roy sax xamuñu ndax bu ñu yeewoo suba dañ ko fa fekk wala dañ ko fa fekk donc ñetteel boobu mooy nañu aar réew mi ak aar ñu nekk ci réew mi ak ñi ñu yeewoo ci réew mi loolu mooy suñu projet de société bi nga xam ne moom la ñu bokk. pour ñu jot seen parrainage bi est Merci beaucoup. Merci beaucoup. yaakaar ne di nga matal parrainage te nga jot nga waaw euh, fu mu ne nii moom yaakaar naa ni moom euh, kooku ci côté boobu amuñu ci benn problème. waaw te amuñu ci benn tiitaange parce que tey suñu parti bi taxaw na fépp fi nga xam ci tey Sénégal def nañu maillage Sénégal ma nga xam ne tey am nañu yaakaar ne moom suñu parrainage moom dina mët. kooku daanaka moom amuñu si benn jàqare fu mu nekk. système système bi xam nga li ma wax sànq la rek c'est-à-dire nit ki moom boo doonee républicain républicain nga rek donte ànd nga moom wala àndoo moom moom foog nga nangu ko rek lépp li nga xam ne loolu nee nañu loolu mooy loi réew mi foog nga doxee li loi réew mi tëddee donc moom daanaka moom awma li may wax si loolu. mooy daal lépp li nga xam ne indi nañ ko ci loi te ñu voté ko assemblée nationale te président promulgué ko comme loi ci réew mi ñun dinañu dinañ joxal loi loi na taxawaay boo gisee xale yi tey di jël géej di dem di jël gaal yi di dem parce que dañu dem ba nga xam ni e, amatuñu benn yaakaar ndaxte sama baay daan na wax ni mu ne nit ki bés bi nga xam ne si lay jeexale yi amatul yaakaar ci àddina bés boobu la dundam jeex parce que boo gisee xale yi tey ñuy jël gaal gi di pare di di rey seen bopp dafa fekk amatuñu yaakaar léegi nag ñun suñu li ñu bëgg mooy indi yaakaar boobu dëkkal yaakaar boobu ci ci ci réew mi. parce que tey am na ci ay tey économie mondiale bi ak technologie bi yàgg na fi nga xam ni tey mën nañu créer lu tolloog eh, cent mille emplois téeméeri junni emploi par année yi nga xam ne ay emplois yu sable lay doon pour xale yi. te ay emploi yi nga xam ne du ñu ko commencé ñaari weer ñetti weer mu dakk ay emploi yi nga xam ne nañ ci mun dund eh, teral si seen i waajur am si seen i njaboot ba pare dundal seen waay seen njaboot ni mu ko waree donc si kaw loolu ñun yaakaar naa ni suñu suñu liggéey mooy tey dekkal dekkal yaakaar ba nga xam ni xale yi loolu immigration bi day dakk